manu ko xaw leen si wal jinni aw sin malik man jaara soxna jaara sa géej gi aduna manu ko xaw leen si wal jinni aw sin malik manu ko xaw soxna jaara sa géej gi aduna manu ko xaw leen si wal jinni aw sin malik manu ko الحمد لله الذي علم بالحلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سعادة النساء والرجال سيدنا محمد صاحب البرهان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما gannaaw bi ñu santaatee borom bi subhaanahu wa taala te julliwaat ci sangam tey santu Maulana si Ahmadou Bamba xaadimu rasul tey ñaanal sëriñ Touba Serigne Mountakha Al Bashir sunu borom yàggal ko fi lool tem mu ànd tey jiital ci sunu nuyoo ak sunu ziyaara sunu wasila sëriñ Xaadim Lo Gaydal ibnu sëñ Moustapha Lo ibnu sëñ Modou Lo Issa di ñaan mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér seen dellu si waat ci bind bi nga xamanteni ni mom moy denkané wasiya soxna pendo job biñu tàmbali won ñu fassiyé nako mortali nga xamni ñu ngi won ci juroom ñaarelu bayit bi ku teddi ki maulana shi Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul di wax ni wa asbiti sidqa ma al ixlaasi wan nuskha tasfari bil ixtisaadi wan nuskha tasfari bil ixtisaasi mu ni nanga sax ci dëgg ak dëggal te nga sellal ko waaye del dimbali nit ñi ci sa xalaat di leen laa biire soo ko defee dinga am ak jagle ci borom bi subhaanahu wa ndax nit ki dafa war a dëggu tey dëggal ba lépp lu mu nekk ci yoonu suraatal mustaxim lay nekk waaye nga war di dimbali nit ñi ci say xalaat ci say wax ak ci say jëf ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ni taawanu anil birri wa taqwa wala taawanu anil ismi wal udwan mu ne wala tarumi taatallahi bila taati zawjiki taqiyi zil ula mu ni yow soxna si bul di sàkkoo topp yàlla rekk yam ci waaye na topp sa borom kër mi nga ni dafa ragal yàlla tey boroomu kawe ndax boroom bi subhaanahu wa taala daf ñoo bind ngir ñu koy jaamu mu waral ci ñun lu deme ni ku koor natt azaka julli juróom ak yeneen yu dul yi waaye mu ni yow soxna si na nga xam ni sa àjjana mu ngi nekk ci topp sa boroom kër bi nga xamante ni nii moo ragal yàlla tamit boroomu kawe waaye ban borom kër lan war a topp koo xamante ni nii dalay dimbali di la teg ci siraatal mustaqim di la dimbali ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala ndax ni góor yàlla di tànnee soxna su baax noonu la soxna war a tànnee borom kër bu baax wa zawjatan saalihatan tuinu alal birri wa tuqaa yaa muin ni ko góor yàlla ki di tànnee noonu la soxna si di war a tànnee loolu waaye mu mel ni fii ji tollu soxna yi de boroomi taax ak boroomi dërëm képp la ñuy xool di ko bàyyi xel te lépp lu nekk ci loolu doonul li sax te yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ni soo demee bay tànn na nga tànn boroom diine ja ndax alal mën naa jeex taar mën naa jeex te borom bi subhaanahu wa taala mayewul dara daa abale rekk suñu jëlee ki nga xamante ne nii moom mooy soxna jaariyatullah Mariama Bousso keroog ba muy dem kër Mamor Anta Sali moom de li mu waxoon rekk dani woon li may sàkku ci moom mbaa mokkal na alxuraan mu ni wal taalami anna jihaada niswati fii taatil azwaaji duuna miryati mu ni yow soxna si na nga xam ni sa xare ci lislaam mooy topp sa boroom kër na nga xam ni sa góorgóorlu ci lislaam mooy topp sa ndigalu boroom kër ndax dafa am benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa am soxna su ñëw ci moom ni ko yaa rasulallah man de sama boroom kër dafa tukki woon ñu wooma ni ma sama waajur dafa tawat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dellul te nga topp sa ndigalu boroom kër ñu woowaat ko ni ko sa waajur wi tawatoon mu ngi toll ci sukuraat mu demaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko demal nga toog te topp sa ndigalu boroom kër ñu woowaat ko ni ko sa boroom kër bi wàcc na mu delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dellul nga toog sa kër te topp sa ndigalu boroom kër bi nga xamante ni nii boroom kër bi dellu si na mu ànd moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko sant yonent bi ni ko santal borom bi subhaanahu wa taala te nga sant sa borom kër ndax sa waajur wii tawatoon ba wàcc safara moo doonoon këram waaye topp gi nga topp sa ndigalu borom kër ci la ko yàlla jéggalee ba yóbbu ko fi nga xamante ne ni moom moo di àjjana mu ni ko fa xaysuma zawjun radiya an zawja radiya anha rabbaha bi nicma mu ni saa su borom kër gërëmee soxnaam borom bi subhaanahu wa taala gërëm ko ak ay xéewalam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni jigéen bu jullee julleem woor weeru kor nattu azaka topp borom bi subhaanahu wa taala borom këram gërëm ko su faatoo day dem àjjana من أما iza lam yarda عنه أبدا فليس يرضى الله عنه سرمدا mu ni borom kër saa su gërëmul soxnaam mu ni yàlla borom bi subhaanahu wa taala du musa gërëm ndax gërëmu yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ngi nekk ci ngërëmu borom kër mu wal taalami bi anna kulla ma sadar li xayri wajhi zi jalaali fa hëdër yow soxna si na nga xam ni lépp looy def mu bàyyikoo ci yow moo xam jëf la moo xam wax la te defoo ko lu dul jëmmi sunu boroom mi nga xamante ni nii moom mooy aji màgg mu ni loolu ay nen la doo ci amee lu dul ay ay jeexit doo ci amul lu dul loo xamante ni nii neexul borom bi subhanahu wa taala kon ñu bàyyee foofu sunuy kàddu ci seen daaray mam Jaara wasiya bi nga xamante ne nii moom moo nekkoon dénkaane soxna Penda Diop nga xam ni képp kuy soxna am nga ci tolluwaay am nga ci wàccuwaay moom lañ leen indiloon izan naqifu huna ila marratin uxra wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah aduna manu ko xaw leen si wal jinni aw sin malikin man